jot suñu ay vidéo da di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international local mouvement Diourbel d'abord ñun ñu yore mouvement taxawu liggéeykat yi muy mouvement national ñu wax waxoon dañuy ànd ci élection législative yi pour dem ak suñu bopp bi yàlla dogalee ñu jóge Diourbel ñu ñu convoqué ñu jeudi ñu war andi suñu parrainage ñu jóge Diourbel bi ñu ñëwee fii gis ne sunu ay parrainage yi ñu andi matul pour ñu dem ci élection yi kon jot na ñu ànd ak benn coalition ñu waxtaan ak coalition les serviteurs d'ailleurs sax moom Pape moom moo xam monsieur Babacar mi tax ñu waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom ñu d'accord ci ànd ci élection yi ñu jëm ma ñëw fekk ne man maa yore parrainage yi jógoon Diourbel yàlla dogal na euh, bi bi ñu ci ñëwee Euh, ma wax may wax tamit yooyu trois quarts yi man maa ko man maa ko maanaam trois quarts yi parrainage yi man maa ko andi hmm. man maa jëlee Touba vingt neuf mille parrainage jëlee juróom plus huit mille et quelques parrainage ñun bi ñu xoolee suñu ay parrainage liñ ci li ci validé vingt huit mille la kon nag ñun bi ñu àndee ñëw ci ci ci ci coalition bi ñu ànd euh, ànd ak les serviteurs pour dem ci élection yi jàpp naa ne loolu ba léegi ñu ci nekk bi yàlla dugal tey ñu am euh, conférence de presse woo ma ne dañ ko am dañ ko am suba man woo naa ko ne ko monsieur Pape Thiam dañoo am conférence de presse suba mu moom woo nañ ko bi ñu ñëwee tamit euh, ñoom ñu wax wax ne euh, monsieur euh, Pape Djibril mooy jël kaddu ak ak monsieur Serigne Ndiaye ak monsieur Khadim Silla ak benn soxna ci jigéen ñi. bi yàlla dogalee ñu ñëw toog bi ñu ñëwee ñu es maamam ñoo génn jóge ci hall bi ñëw bi ñu ñëwee ñu installé ma ma toog moom mu taxaw ci ginnaaw installé wuñ ko xam naa dafa mer ci ñàkk installation boobu moom moo indi coow moo indi coow li. waa li mu ci parrainage. waaw lim lim ci dellusi nag déggu xam nga loo xam ne déggu ko mu mu ci indi tontu. jëlee Diourbel euh, huit mille et quelques parrainages jëlee Fatick mille quatre cent parrainages jëlee Louga mille et nangam parrainages li mu andi mi ngi ci kayit bi xam na ko xam nañ ko. ndax ñàkk toog bi war naa tax tey loolu nag loolu en tant koo xam ne inspecteur des impôts et la di borom xam-xam di kilifa wóote ñàkk a toog rek tax mu ñëw fii pour ñëw pour wax ak voici pour yàq loo xam ne ñu liggéey nañ ko ñun lu nekk lu leer la. nekkuñu ci loo xam ne lu lëndëm la ñun ay ay kilifa lañu ay responsable ay donga daara lañu ay boromi xam-xam lañu ñëw ñu fi di polémique yi ñàkk toog nag wax dëgg yàlla wóot a tax nga ñëw bu ngeen dégloo discours bi su ko dégloo lépp lu mu war cër bi ñuy lim nañ ko man ma jëlee kàddu wax naa euh, fi ma jóge ak ñi ma àndal ba egsi fii jàpp naa ne loolu mooy loolu mooy mooy question bi li am solo mooy ñëpp ñu wax waaye man ñu jël kàddu su ngeen arrêté ci ginnaaw wax ne maa ngi sant waa Diourbel di sant mouvement Diourbel di dawal bi nga xam ne wóolu nañu ànd ak ñun di sant waa Touba yëpp ñi na xam ne xar sant sama mbokki boulanger naa ne loolu am jox nañ ko amaa jëmmi nag nit ku nag li si ci boppam bu ko neexee génn woo journaliste wax sama sama xalaat waaye jàpp naa ne li tax moom moo war a wax mooy da wax ne damaa ñëw ma loolu la waroon wax su boobaa xam ne loolu moom normal waaye bu ñëwee ne dañoo trafiqué loolu amul te maa ngi koy maa maa ngi défier mun andi benn preuve ne loolu am na